ko war a lijjanti surveiller ko voilà loolu la nag. alors bu ñu desee ci combat bi. bu ñu desee ci biir combat bi nee nañ Modou Lo daanu na. non Modou Lo moo daan Siteu. parce que mu ko daanee. mo ah Siteu am na trois avertissement. ah ok xam nañ ni faaw ñu wax tamit nañ waxtaan ci règlement làmb. waaw règlement làmb bu ngeen déclenché site bi ci biir. Hmm. ngeen daanu mu jeexee ci biti waaw. maanaam ngeen première site bi ngeen déclenché mu daanu ku fa daanu daanu mais deuxième site mënu fa amaat. c'est-à-dire. dafa am dafa am benn dafa am enceinte bi nii mooy saako yi ngay njëkk a gis ñu wërale ko. waaw am beneen saako bu ñu wërale. waaw ci ginnaaw. beneen fële nag son morte la moom foo boo yan woon mbër sànni ko fa sax daanu woon. Hmm. mooy fa suuf sa yem. léegi dañ boo déclenché woon fii prise ngeen ànd ne rëpp ci fii. ci deuxième kii bi. saa booba ku daanu daanu la. parce que action bi ci biir la. commencé jeexee mais action bi Modou bi mu ko déclenché ci biir sànni Siteu. Siteu dafa rëb ci ginnaaw def trois appuis fa la ba yam foofu arbitre day àtte foofu Siteu mënutul amaat parce que foofu yéen a ngi ca couloir bi nga xam ne foofu daanu rek lañ fa mën a def kenn mënu faa bëri loolu mooy règlement bi. Hmm. maanaam zone zone foofu saa kuy wër daanu rek lañ fa mën def kenn mënu faa bëri. jàpp nga ne recours Siteu du am non du dem fenn. du am suite non du am suite reste waxoo waxi supporter làmb man li ma lay wax règlement làmb la bu la neexee nga woo ku la neex. Hmm. ki ne ci làmb nga laaj ko. zone boobu kenn du fa bëree sit rek moo fay am c'est-à-dire nga fii site bi teg Moodu mooy bi mu bi mu téye bi site téye loxo bi te Moodu manuel ko site rëpp ci ginnaaw saako moo yóbbu site ci biti jeex na hmm. léegi site boobu bu fekkoonte ne foofu la site daanoo wala foofu la Moodu daanoo dañ koy accordé dañ koy accordé mais bi site nekk ci ginnaaw Moodu la dafa jóg di ko bëmëx pour defaat action hmm. boobu Moodu ngi ci kaw saako yi site ngi ci biir saako bu ngeen xoolee bi Modou mu ngi ci kaw saako yi. mooy hmm. première bi. mais deuxième bi fekk na moom Siteu génn na Modou di continuer te foofu kenn du fa continuer action. mais ci même ci même action bi la épaule Modou laale. non ci même action bi ñaari Siteu la boo xoolee loxo mu Siteu bi mu ko Modou sànnee. Hmm. dafa daan rëpp ci ginnaaw saako yi def trois appui. foofu bu defoon quatre appui jeex na mais trois la def foofu nag amul jekkale boo gisee arbitre bi sax mu ngi doon yow pour àtte hmm. foofu la Modou jóg pour bëmax ko. Siteu def rotation mais benn tànku sit baa ngi ci kaw saako yi Modou teg épaule bi Siteu boobu kenn du ko accordé. kon mën nañ jàpp ne. non non waa li ma lay wax Mouhamed li ma lay wax kay. xanaa la xanaa leneen rax ci waaye bu dee règlement làmb rek. Hmm. foofu ma la wax kay wool ku la neex kenn du fa bëree. Siteu rek moo fay am su ngeen jàppante woon taxaw fa sax arbitre day àtte. day àtte parce que maanaam génn kenn bu génnee taxaw fa. génn taxaw dañuy àtte. ah que foofu boo déclenché action zone morte ba ngeen jëm. parce que moo tax zone boobu kenn du fa bëre daanu rek lañ fay def tax Modou moo fa yóbbu Siteu di jekkali ji nag jekkali boobu dañ ko fay bañ. Hmm. loolu tax arbitre bi bi mu demee ci VAR bi xool gis action bi bi ñu sànnee Siteu moom génn na ba ne ci zone de sécurité ba ma nga fa. léegi moo Modou zone de sécurité boobu la bëggoon a bëriwaat ak Siteu te foofu kenn du fa bëri moo tax Siteu roccee zone de sécurité xam nga trois appui la fa am. boo amee trois appui yaay ëpp doole que ki nga xam ne mu ngi taxaw. Mhm. moom trois appui la am ci la rocceeku nag. Moodu di ko bëmaax mu rocceeku. mu rocceeku. waaw donc mun nañ mais nag suñu suñu hmm. dikkaatee ci làmb ji moom. waaw dañ waxante si te bëriwul. bëriwul. bëriwul gars yi ne si te dafa héroïque démb ak. li mu def yëpp bëriwul mënuñu mënoo topp di génn saako yi rek. jàpp roi des arènes yóbbu ko. trois première fois c'est euh, première ñaari nit ñoo fi bëreeg roi des arènes di génn saako yi. muy. Yékini Tapha Gueye. waay Siteu Modou Lo. boobu moom beneen affaire la Yékini du yaral bi tamit noonu la mel ni <laughs> ñi da ñi ma gis ñu bëri roi des arènes dañu ñëw ërtal roi des arènes xeex ak moom xam ne li nga yor. parce que moom lañ jël si li nga yor laa jël si. Siteu nag Modou Lo bu meloon comme keneen. bi Siteu génnee génnaat ay loxoom lay aj fanaan fa ba ngoon jot. ne ko boo ñëwul du ma ñëw. jeex na mais nag Modou Lo chaque jour day bëgg bëggal ay amateur am. lu wér te wóor gis nga Bombardier ak Balla Gaye bañ ca tollee nu Bombardier def tegale tànkam. taxaw di ko xaar waaw. Balla jàpp ndiggam mais Modou yëfi ñàkk yooyu du ko nangoo def looloo tax Modou continuer di bëree di bëree di bëree di bëree. ah mais a mérité nag. il a mérité est à dire non am na loo na loo xam ne Modou ñu ko song waay am na loo xam ne daw la. on se dit la vérité. si yaakaar nga muy daw. kenn si làmb ji ak fi toll doon daw quand même yow tamit doon daw mais bu taxawoon kuy daw dina jàpp nit ki yóbbu ko. bu taxawoon kenn daanu. Siteu bi muy dóor Modou génn nañ saako yi sax. Hmm. xeex bi ci ginnaaw saako yi. te loolu Modou sax ci la amee avertissement bi mu am. mais Siteu nañ waxante dëgg tamit Siteu bëriwul. on se dit la vérité démb ñëwul pour daan Modou bu ko daan Modou Lo indi woon day taxaw. Ama Baldé ñoom booy ñaar bi leen daan Modou Lo indee taxaw nañ xeex ak Modou ba daanoo. Hmm. te nag daa daw ba daanu te bi mooy deuxième fois moom tamit il faut mu xoolaat mooy bi mooy deuxième fois contre Lac de Guiers jël nañ lépp xëpp ko Lac te alors que moo ëppoon avertissement Lac de hmm. daan na ko par avertissement mu ñëw répété waat ko ci Modou Lo après ma nga yóotu Balla Gaye est-ce que du répété waat la même <laughs> loolu tamit mënul continuer. mais est-ce que war na ko mën a may mu jël Balla Gaye. Ah, si li mu du maas dabante la mais Siteu faaw mu ñëw nag. sample bu ponkali indi Siteu bañ Hmm. indi Siteu bañ taxaw wala boog dafa am problème ak ak ak ponkali parce que ci lak la jaar Sa Thiès la njëkk jaar Sa gis nga moom si xam nga bi mu bëreeg Sa Thiès sax mu ngi doon reculer malgré Sa Thiès a xaru ci kawam rek waaw waaw moom dawoon na ba génn saako yi bi mu bëreeg Sa Thiès deuxième bi Sa daqaat koo ko jaxase ko foofu profité daan ko waaw peut-être ma ne loolu est-ce que du feemam arrière jumloo adversaire am feem yooyu nag na ko teg suuf nag tamit parce que bu demee ba gars yi la ci sa waay dañuy feemu comme yow te boobaa day yàq la. boobaa bu ñu la gëddee nga génn saako yi waa ji day tegalee tànkam. ak gardam ba suba yàq làmb ji. amateur yi dagg seen biir duñ kontaan si te mbooloo mi ko topp na bëree rek bëri ci jom bëri ci fula dox kenn mere ko. Mhm. mais mu am jël képp ku bëgg dëgg te àtte te yàlla tax gis naa paa boobu toogoon ci télé bi mooy entraîneur Reug Reug la xaw ma course Reug Reug moom la muy wax teguwul fenn nañ waxante dëgg nag si te démb puusut paasut position roi des arènes la yoroon moom démb. comme si Siteu moo yoroon korom bi war ko protéger. mais Abdou Nguer ku la dégg nga dafa mel ni làmb ji peut-être biin sport nga ko doon seetaane waaye li gars yi gis ak li nga gis du benn. mais man kan moo doon def ci saako yi nit ñi jàpp nañ ne Siteu jàmbaar la dem wala ne ki ma doon yéen ci saako seen ci saako yi kan la xàmmee ma ko de kon ki ma doon seen ca saako ya moom kooku ku mu doon. ok ki arbitre yi doon jox avertissement kooku ku mu doon. Hmm. lan rek laay laaj kooku kan la. man day xamuma kooku nu mu tudd kon man daal li moo xam muy wax dëgg yàlla làmb moom ki daan jël si xam nga bu doon kenn du ci roi de arènes nangu naa. waaw mais yow kii couronne bi la yor ngeen mat si niil ma nga néegam mat lu ngeen mën a xew moom moo ko yor. nga am avertissement ma nga néegam. waaw. mais ah, yow yaay dem waroon nga mën a def ful la. waaw loolu moom moom loolu la daan wax yox la jëli ko loolu moom moom moo waroon dem jëli ko. surtout nga am sens bu rëy. si génération yooyu yaa dem ba temps des deux minutes. te yow am nga presque quatre avertissement. waay waay foofu man xaw ma lu tax Siteu accélère. kenn da koo xamul deux minutes des na man la moom en position roi des arts Siteu xam nga lu mu bëree hmm. lu ma am ci Modou doy na ma. <laughs> non nañ waxante dëgg nag keroog maa ngi gis ñoom kii wax ko ko ñoom Fadam ak ñoo ñooñu di wax mu leen di attaqué kawam mais nag neexul mais ñoom Fadam dañu am raison ci kawam Siteu. Siteu mënoo rapport ñoom sa Fadam nga wax leen yenn wax yi ba pare ñoom nee nañ la sans combat kii la mën. Hmm. mais yow da ngay wala loolu la bëre waale tax muy muy arrière arrière arrière arrière arrière arrière mais léegi ëpp na tam Siteu. ba Siteu day pare mel ni moo daan nag. dem àgg non non <laughs> daal am am am rek. <laughs> en tout cas am na lu commencé xew si làmb ji aussi na ko mbëri bàyyi parce que tamit làmb ak sport dafa am ay chroniqueurs yoo xamante ne dañuy. am i critique dama koy Siteu dama koy dama koy donc jaruñu leen di menacer xam nga Siteu dama bëgg booyam yi nag li yónnee ko ko. mooy Siteu ku ne xam na ni manifestation yu amoon am na poussière bu mu ci taxawee woon ba ne jàmm gën du nangu kenn di ko taal. ba waa hmm. passif aman amante ba mu contentieux ba di ko saaga. bu mu menacé kenn. parce ma gis si si te nag ko ma gis képp amoon na ñoom contentieux bu ñu la porté plainte dañ la dugal ci ah, a a ñam di. ñi ah, ah. ni ngay waxee dafay mel ni fayantoo la après. si fayantoo la moom non loolu moom dama ko assumé ñi dañu fayantoo te Siteu posture boobu mu taxawee woon ci manifestation. taxawal Modou Lo bokk nañ ci li ko gën a waa possible gën a meree sax mooy posture boobu tamit mooy ànd bi ma àndoon Amadou Ba kon régime bii dama bëgg ñi ñi ñiy def sport ñëpp ñu xam leen te man Siteu dama ko estimer dama ko bëgg wax dëgg yàlla yàgg naa ko supporter mais dama ne loolu na ci def très très attention parce que nguur gi mu jàkkaar loolu la moo tax. je sais que du ragal mais nag dafa am avenir. maanaam menaces yi ñuy def jëmale voilà menaces yi ngay wax diw doo fi dugg. diw nii diw mën na fa jaar ñu kii otoom mu porté la pelet hmm. parce que danaan yaa incité ni ñu dal sama kaw. fekk ñii een nañ la toog di la xaar. dama man damay alerter rek. Hmm. parce que damaa xam ñi may jàkkaar lool. moo tax man sax bugg gisoo ma am ak kenn contentieux ku bokkul passif. ñi bokk parce que moom ba ñu ma contentieux ñoom ñu portante plainte garaawul mais citoyen lambda koo xam ne muy problème mu xaalis. Hmm. muy problème mu jigéen muy problème yi bugguma ko am ak problème kenn nga xam ne buñ la porté plainte ñee dañ ciy profité réglé waale seen i fekk du plainte ba yow yaa leen soof loolu laay bañ a Siteu te ne ko na ko fansam yi dagg yónnee ko ko mu def ci très station du ragal de mais moytu la ndax dafa am carrière am avenir war a bëri. Hmm. te menace dañ koy aaye. dañ koy aaye loolu moom na ci def très très attention te ñoom buur géwél ak ñoom Fadam ak ñoom. seen xalaat la ñuy wax rek ñoo ñoom ñoo bokk làmb. ba pare loolu mooy jaay làmb. ñoom ñoo bokk làmb. Mm-hmm. làmb moom ñoom ñëpp ñoo ko bokk benn lañ. may nuyu alaaji Bekaay nag. keroog daf ma jox numéro am am ku ma ko dénk ma laajaat ko ko mu ne gisu ko dinaa fexe ku am numéro am te man ma ko yónnee daal soxla naa ko. numéro Bekaay waaw dañoo daje woon fële Ndeysaan dëkk bu sell ba. Touba wala Njaasaan Njaasaan Njaasaan lañ daje woon muy ku baax Mm-hmm. alaaji Bekkaay ngeen waxtaan. waaye ku baax la. Mm-hmm. xaritu waa Pastef. Mm-hmm. ñoom it ba wuñu kenn seen woroomu papa yi rek la ñuy saaga. Nguer Nguer loo wax dëgg ci laax Pastef yow même bu ñu la laajoon <laughs> bu ñu la waxoon kaay def conférence u diine sax gëm naa ne doo wax ba jeexal te te te laaloo si waa Pastef mais am nañu jàpp ne aussi euh, Modou Lo kenn mënatu koo daan ci làmb ji am ñu gis.